dégg saware yi si. voilà dañ ko yokk nii fii porte bi dafa yaatu. waaw porte bi daa yaatu. waaw lii daal lañ def lii. ah lii daal la dindee décor def. ñu gaa yi ngi coode moom gaa yi ngi coode. waaw lii daal lañ def. barki yàlla di jàng rek. ñoo buñ ci dara nag dañuy jéem rek. moo kalee gaañu. su bi nga mokkal asa ngoog waaw waaw ne naa ne de fa wun ak ci yàlla barki alquran ah ñi ko wax bëri na de gaay dal nee nañ bu ñuy jabar ñun la ñuy woo fayee ko nan de barki alxuraan ci yonente wi dafa leer nañu